ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare fi ñu tàmm di leen nuyoo rek muy Lutte TV point com yàgg naa di leen ko wax wala boog fan yëpp maa ngi leen koy wax yéen ñi nga xamante ne yéen ngi koy seetaan ci TNT bi canal 150 ñu ngi leen nuyu bu baax a baax yéen ñi nga xamante ne commencé gu leen di leen ko di ko seetaan foofu te amu leen ah nekk ci endroit yoo xamante ne peut-être connexion bi du demee noonu mën ngeen ko seetaan ci TNT bi canal 150 tey nag ñu ngi dalal ki nga xamante ne moom mooy Boy Dakar fas yéene waxtaan ak moom ci carrière waaye waxtaan ak moom ci làmb kon ne xam ne temps yi nag coow li bari na am na mbër yoo xamante ne mu ngi leen di tudd ni pare na pour bëri ak ñoom loolu yëpp dinañ ko waxtaanee. Boy Dakar maa lay nuyu bu baax a baax di la ziare bàyyi la nga nuyoo mbokk internet yi ñëw nga la TV waaye sa koñ la maa ngi lay bëgg bu baax a baax di la ziare. waaw delloo bëgg bu wér Lamine maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu tamit El Hadj Malick caméraman bi di nuyu waa Lutte yëpp di nuyu Boz aussi. di ñaanal télé bi tamit yàlla na fi yàlla na ko yàlla def tele bu mag maga mag a mag ba ñëpp xaj ci barke Seydina Mohamed waaw di nuyu waa axlu làmb tamit di nuy suñu président Papa Bira Sène waaw yàlla bàyyi ko lu yàgg a yàgg wéral cëram ak mboolem jullit yàlla defal ñu jàmm di nuyu tamit euh, ku si mel ne Aïdara Mbacke Niass euh, Modou Sagna Aba le vrai waaw di nuy ñoom Matar ñoom Lamine Nar ñoom euh, Maris waaw bàyyiwuma kenn daal di nuyu ñëpp képp koo xam ne mu ngi tiitaroo Boy Dakar rek maa ngi lay siyaar waaw. Boy Dakar lan mooy tax Boy Dakar. waaw Boy Dakar sama cousin ko tuddee. saa yu mu jógee fii dem vacances euh, Kaolack rek saa yu ñëwee mu ne booy dakaar bi ñëw na hmm. léegi nag ma dem ba commencé bëre tuddee sama bopp booy hmm. waaw. boobu yaa ngi doon jàng. waaw maa ngi doon jàng. arab nga doon jàng wala français. ñaar yëpp maa ngi doon jàng arab maa doon jàng français. Hmm. waaw. sori nga ci arab bi. waaw taxale nañ de ba am lu ñuy jullee di si jaamu yàlla di si fàcc ñu soxla. waaw. français bi nag fan nga ci euh, jotee. français bi sem doo laayam. moo sabab sa baay. suma baay lam euh, euh, baay jàng waaw parce que dama doon ànd sama benn mag bu ñu naan Sadam saa yu ma war a jàng sama leçon rek du ma jàng samay leçon damay daw wala su ma teree sax damay dugg si ron saret bi mu ñoom dañuy jékki-jékki rek gis ma léegi nag ma dem ba virus làmb bi dugg ci man léegi nag bu ma ñibbisee vacance euh, bu ma ñibbisee Dakar fi sama papa mu ne ma yow lu tax doon nangoo jàng ma ne ko man làmb laa bëgg mu ne ma ah mu ne ma làmb ji dafa métti de ku léegi looy def ma ne ku ma dóor damay fayu affaire daal loolu la ma ñaanalee ba ma nekk ci làmb ji sa sama premier licence bu ma ko indee rongo ñoom dafa toq ci licence bi moo tax man man làmb dara jaaxalu ma si. Mm-hmm. moo tax ma si fas jom daal. ok kon topp ay mbër moo moo moo tax. moo yàq say étude. Mm-hmm. topp ay mbër mais aussi tamit ay mbër dañu ma entouré samay famille yëpp presque mbër lañ. ku si mel ni waaw ku si mel ni sama maam mbër la woon Simbo Ndiaye ku si mel ni Manuel sama jëkkër bàjjen mbër la woon ku si mel ni sa ku si mel ni Biricol ku mel ni Cunuwaar ku si mel ni wan booy Alizé ñoom ñëpp samay famille lañ. waaw loolu dinañ ci ñëw wax nga ko sànq nga ne da nga doon topp ay mbër ba xëy bàyyi jàng ndax boobu ak léegi amoo ci regret nga ne su démb doon tey de dinaa continuer nekk ci sama étude wala amoo ci benn benn benn regret. non non amoo ci moom parce que tamit sama choix la ko waaw parce que tamit jàng moment yu ma doon jàng gis naa ñoo xam ne ñu ngi réussir si jàng moment yu ma doon jàng aussi am na ñu doon réussir si làmb moo tax ma choisir làmb. waaw mais sant yàlla daal ñu ngi siy sant yàlla ba dugguñu dara caaxaan. Mm-hmm. waaw. wala da nga niveau wala da nga rek. dama ko bëggoon. dama ko jàng mi laax da nga amul woon niveau wala wala wala da nga wala da nga mënoon naa jàng mais dama bañoon. maanaam lamb bi moo ma ëppoon doole. Mm-hmm. waaw noonu la demee. su ma waree jàng sama leçon du ma jàng suñ ma joxee euh, ay exercice du ma ko def xam nga loolu moo taxoon quoi ma dem ba ci biir ma a xaar ma continuer lu ma bëggali quoi. Mm-hmm. loolu am na solo bi nga bi bi nga bàyyi jàng nga nekk ci mbapat yi fan fan nga jaar ci mbapat. waaw mbapat jaar naa fu ñuy wax Kaolack Kaolack presque dugg naa fu même bépp dëkk. waaw jël naa fa drapeau bu ne jël naa nag jël naa xaalis jël naa leneen ak leneen. waaw ñëw naa drapeau chef de tamit yóbbu naa Kaolack final ñu perte final bi drapeau euh, moo ñu gañe woon final. waaw loolu yëpp ñu ngi ci daal arène bi tamit mu ñëw ma ciy wane sama bopp jusqu'à présent. Mm-hmm. waaw di sant yàlla rek. soo ko fii nii NGB comme ni ngeen koy waxee ñan nga fi jot a bëri ma. Mbapat fii nii la plupart nag ñun waa Grand Yoff lañ doon bëreel secteur par secteur quoi ay Grand Yoff ay HLM. fekk non non mais ku kuy jàng bëri nag da ngay bëri sa waa koñ ba pare balaa ngay dem ci beneen secteur ndax ndax bëri woo feeg ñeen am na ñoo xam ne ñoo la ñoo la jiitu ci làmb mais am na ay boo yoo xamante ne peut-être nekkandoo woon ngeen fi ndax mën ngeen ngeen a laale non mosu ñoo laale nag mosu fi bëri kenn ñoo laale de fii hmm. man secteur moment yooyu noonu secteur ba secteur lu groupe lañ doon def ko ñu suñu secteur bi fii yëpp man faali ñoom Sitor ñoom Fay Biram ah, ak ñeneen ak ñeneen waaw ñu ñun mbër yu nekk si gox bi daal waaw ñum si corien bëri nañ daal waaw waaw ondu la fu sama sama sama booy bi ñëpp waaw ñu groupe lañ doon def moo tax fii pour ñu bëri dañ doon def groupe dem si làmb waaw loolu moo tax waaw. ci mbapat ban miss nga jël boo xamante ni bari na bu ci gën a bari. waaw bu ma defee drapeau chef de l'État boobu tamit bëri na euh, ak yeneen compétition yu ma dem Kaolack aussi tamit bëri na mais doo mun a xam il faut nga dajale nga mun a xam quoi mm-hmm. waaw. nga dem ci benn tournoi ñu par exemple teg nañ 2 millions. Mm-hmm. mbapat boo jël boo xamante ne xam nga somme bi ñaata la quoi mu toll. waaw ak nu mu toll. parce que millions yi ay demi final laa doon yem quoi. Hmm. demi final laa doon yem. Hmm. loolu moo tax. mais yeneen yu ma yu des yëpp moom dama doon jël. ay ay waaw ay nag wala xaalis. Hmm. waaw ma côté Kaolack bi. waaw côté yooyu mais Dakar moom musuma fi jël drapeau ay demi final laa doon yem quoi. kon doon nga dem waaw dem naa adressé ngoor dem naa lamb yëkkani yëpp dem naa ci. waaw. mburu mbapat yi. gaa yi xam fii. ñeen nga ci jot a bëreel ci tournoi yi. naa Reug Reug bëri naa Mol 1 bëri na daal doo mën a mën a yëpp. Malal Ndiaye tamit nañ. Ah. waaw Ousmane Gandigaar bëri nañ. waaw. yàgg Reug Reug expliqué ma seen combat ma pat nu mu demee ak ak ak ak ku daan. waaw maa Reug Reug jour wu ñuy bëree avant avant bi di ñëw si guddi gi dama wax yàlla naa dajeeg Reug Reug hmm. ma xëy dajeeg moom ma ne xëy sama ñaan bi nangu na nag hmm. mais bu ñuy bëree moom ëpp doole bu ma def technique sama technique réussir na moom xam na lii laay def léegi nag si la ma contrer wër ndoom ma nag mu daan ma waaw. tax nga ni moom ñaan yàlla bëri ak non dama doon bëri yoo xam ne dafa dañoo toll ni ñoom te dama doon def ma doon tester sama euh, technique pour mun ma xool ndax danaa réussir si moom wala duma ma réussir. Mm-hmm. ak nu mu doon bëree gars yi di leen daan. loolu moo taxoon. mais suñu grand bu bien la nag. bëre moom moo la neexoon wala gëmoon nga amoon nga yaakaar ni li nga testé ci yenn poids lourd réussir ko mën nga ko réussir. waaw mun munoon naa kaa réussir amaana jour boobu tamit jour daanu la rek munoon naa kaa réussir mais aussi tamit champion la waaw parce que dama gëmoon ne dama koy daan man loolu laa gëmoon loolu laa décidé woon te dama décidé woon kele bi laa koy daanee mais yàlla def na sottiwul. nan nga ko bëggoon daane. bëggoon kal nga poids am na poids yoo xamante ne mënuñu maîtriser soo leen mënuñu maîtriser seen gannaaw dañuy ah, toog mooy kal yu may def gaa yi rek kal yu may def gaay hmm. dama téye loxo bi nit moom doole ma téye loxo bi xëcc ko mu taxaw sur place. ma dóor bi si la ma sànnee nag wër ndoom ma. wër ndoom mu daan ma. da laa kaw wala. yenu ma de hmm. yenu ma. xam na def ma la mel ne lu ma yëkkati nii rek bës ma ma tëdd. waaw dafa am doole waaw yàlla may na ko doole moom wax dëgg. doole doxul jàmm waaw doole doxul jàmm. Ah. waaw noonu la demee. ok ak ñeen nga jot a bëree lan. mool 1 laa ko daan. waaw mool tamit champion bu mag. Ah. Ousmane Gandigal euh, sélection drapeau chef de l'état la woon. Hmm. boobu moom par trois appels la ma daanee quoi si règlement boobu noonu. Hmm. waaw noonu la demee. yoon nga participé drapeau chef de l'état. benn yoon ah. hmm. non deux fois xaw ma trois fois. trois fois la trois fois. waaw na ñaari yoon Kaolack. mu nekk trois fois. waaw. mës nga gagné. waaw mosuma gagné nag. waaw final laa dem ñu gagné ma. ma Kaolack wala Kédougou. Euh, Kaolack Kédougou ma dem fa. ma lii ñaari yoon benn bi dama dama dama dama ëpp un gramme am deux gramme gars ñu ne ma duñ ma bàyyi ma bëri jour boobu ma jooy fa jooy yu métti. un gramme wala kilo. un gramme waxuma la kilo de un gramme. jour boobu noonu lépp lu nekk sama yaram dama ko dindi lekk toog naa cinq jours xam nga six jours lekkuma wallahi azim ay biscrème laay lekk wala ay gerte caaf dem naa ba amatuma kattan am na boo xamante ne kattan moo tax ma perte lii bi drapeau bi ndax mënatuma daan nit waaw parce que toog naa ay quatre jours xam nga cinq jours lekkuma pour mun a wàññi sama poids rek loolu moo tax ren ma ne xaaral ma aju drapeau c'est là dafa métti quoi. waaw léegi suma may lii rek damay jëm jëm a jëm. soixante euh, quatre-vingt-six kilos. dem a dem si kaw quoi mais pas may wàññi léegi waaw. ok Boy Dakar loolu am na solo nga dugg ci arène bi ban année. 2014. 2014 laa si dugg. kan moo tëgg sa combat boobu ak kan mu bëri grand combat bi. Euh, sëñ Modou Niang moo ko tëggoon ma bëreeg euh, Orca te ñu koy wax mbaytin te mu doon bëreeg Tony waaw mais grand comba bi rappelé wu ma ko nag kan moo ko bëri woon waaw. Orca nga bëri loon ku daanoon. man maa ko daan hmm. waaw. noo ko daane. dama ko kal mooy kal bu ma la wax sànq rek hmm. léegi ma gars yi maa duñ jàkkaarloo naan la taatu valise bi. non. mukk wala nga yeneen. <laughs> Ah. waaw fa bëree ak kan. ma bëri fa jógee fa bëree ak euh, waaye bëri na de <laughs> instant yi mënut ma sax jàpp mbëri. non ay boy Dantec bëri naa ñoom. ñoom Modou Yacine. ñoom Caatu Ngéwél. ñoom Giro ñoom Tigo xaritu yaayam. waaw bëri naa ñoo ñëpp waaw. ñoom ñëpp ku la ci ñoom ñëpp maa leen daan. ñëpp maa leen daan. ñëpp yaa leen daan. gàkku daal laa xam ne daal. waaw sama première défaite par décision arbitrale. noonu la demee ko mm-hmm. mm-hmm. euh, sa combat ak Giro Seras kan moo ko tëggoon parce que dama bëgg génne image yi Malick booy monté wala Mouhamed xam nga booy mu tegal ma combat yooyu noonu nag yiñ ci yiñ ci am mais dama bëgg a xam combat kan moo ko tëgg yan la ci Fallou Ndiaye tëgg. Fallou Ndiaye est-ce que mosoo ma tëggal. mosul nga tëgg ci tëggal de. soo naa su ma juum moo tëggal ak Kanji daal ñoo ma tëggal ak sëñ Modou Niang ñoo ma tëggal sama carrière. soo ko may Assane Ndiaye la. Assane Ndiaye Kanji. Kanji. ak benn combat mu tëjee yàlla ko yàlla yërëm xaare ko àjjana. waaw Assane moo ko tëgg ak sëñ ak kii ni Kanji. waaw noonu la demee. Mm-hmm. Mm-hmm. nga daan Giro Seras mais ay champion ay ay bërëkkat nga daan. ay bërëkkat laa daan mais ba léegi mënu ma avancer làmb xaw ma lu mu demee noonu waaw des fois nag dañuy proposer ay adversaires yoo xamante ne yaa leen raw si làmb. kan ak kan nga euh, man maa euh, ngi bëri di Ronaldinho laa bëreel. Mhm. Euh, ak Gakou 2. Mhm. su ma juumul ak Tmax. waaw laa bëreel waaw sama trois dernier mhm. ñoom laa bëreel daal. lan moo la may day nga am combat yooyu noonu yëpp daanuñu la wala boog defet bi nga ci am da nga ko am par avertissement lan moo la may loolu noonu. defet bi wala. non li la may bi nga duggee ci làmb ba léegi kenn daanu la ba nga tëdd benn defet bi nga amagoon ci sa danga ko am donte defet la nag danga ko am par par par par avertissement lan moo la may loolu. waaw dañuy sant yàlla rek liggéey rek. parce que man toujours man damay gëm ne man damaa war a gagné man philosophie boobu laa yor man damay toujours damaa jàpp ne man damay gagné moo tax euh, ku si mel ni suñu coach Mbaye fay pek sama papa père jaxate aussi tamit nga xamante ne sama carrière yëpp daf ko euh, daf ma see jàppale ñoom toujours ñooy ñooy ñooy nekk sama wet di ma encourager benn su may bëree damay xalaat père jaxate père jaxate dafa am lu nekk ci moom te toujours moo sax sama combat damay damay bëgg muy gaaw a jeex waaw moo tax bëgguma ko teg coono. waaw parce que dafa ma dafa ma bëgg ba dañuy yaakaar rek sax dafa may gënal ak yeneen boo booy fekk demeewut noonu waaw Père Jaxate aw ma fayam ak euh, sama papa Mbaye Faye liggéey la waaw liggéey la rek uh-huh. waaw. ok wax da ngay daan te ñi la war a jël duñ la jël ñen ñoo ku si mel ni Ndandi Fall war na ma jël ku si mel ni Modja war na ma jël ku si mel ni Dame Sène war na ma jël ku si mel ni Ahmed Dem war na ma jël ku si mel ni Tidjane Faye war na ma jël parce que instant nii nii nii. wax fa dëgg yàlla su nekkee dama nar a bëre sama yeneen morom yi rek mieux vaut que ma année balance wala ma bàyyi làmb quoi. bàyyi bëre su ma bëree woon ñoom mama ah, kenn si ñoom damay bàyyi bëre parce que tey jii du ma nekk fii partout euh, treize combats laa def douze victoire benn défaite par décision arbitre comme ni nga ko waxee donte défaite la mais dañ ciy sant yàlla. jusqu'à présent mënoo prouver si làmb mu prouvé nañ sax mais maanaam mënoo dem si kaw comme ça waaw yi nga bëgg man à la fin damaa bëgg xam lan lañ bëgg quoi. dañoo bëggul ma avancé wala lan la. mais ñu fi wax ni ndax ndax di suñu ci yow ay Modou Dia ay ame Dem ak kan nga fa waxoon sax yaa ak Tidiane Faye sax peut-être diis du ci am mën ngeen a tolloo ak ay Ndandi Fall mais ñu ngi ci ay Ahmed Dem ak euh, Modou Dia ñooñu diisuñu ci yow. non diisuñu ci. Talfa sax dégg naa nga wax suma jum. non waxuma Talfa dañ ma ko proposé ma ne ko man moom bokkuñu yoon. ah bëggoo Talfa soxla woo. waaw soxla wu ma ko maanaam. soxla woo ko la man moo la ëpp doole. non non. munu ma. moo man maanaam dañoo bokkul yoon. parce que daan ku ne ci làmb ku ne ci làmb daan naa ko. Alpha mënu la Boy Boy Dakar nag moo mën affaire yooyu noonu kenn du ko def. kenn la Talfa Talfa champion la mu ngi ci yoonam maa ngi sama yoon. Hmm. waaw ku nekk na liggéey waaw nu ma ko waxee woon rek laa ko waxee. waaye yow kenn mënu la. non non góor yàlla la jàmbaar la waaw te ragaluma fu ma jëm. loolu xeexu mbedd daal moom mën naa nangu nga kenn mënu ma ndax ay yi ci am dóor yat ak lu ne xeer waaye làmb ji moom boo taxawee ni kenn mënu la lii mooy gëm sa bopp nag booy da ngaa gëm sa bopp. mais dafa am lu nekk ci man moo tax ñu may daw nag de. booy booy yu bëri. dafa am lu nekk ci man dafa am mbër soo gisee ba léegi nangu ma jël xam na yeneen booy yu bëri dafa am mbër fii ba soo ko tegaloon ay milliards du ma jël. mais na booy boo xamante ne euh, ndax dugg na seen koñ barki démb def fa affaire Diop de. non kooku sama tout tànk la kooku liggéey ba ci kanam. dugg sa koñ def fa jaloore waaw dëgg la mais am na yeneen sama yeneen éléments yu fi nekk na xool si éléments yooyu noonu rek. soxlawoo ko soxlawu ma ko xooluma ko sax. Hmm. Mhm. Liss Ndiago. non kooku kooku moom bëgguma wax waxam quoi. ko xam. non non xam nga ko kay nag. non maanaam bëgguma wax waxam quoi. sax bëggoo wax waxam. waaw mu ne xaw ma loolu loolu loolu loolu jarul pour ma si sori quoi. Mhm. nee na xaw ma. ñu dàq seetaan la moo loolaa rakk ji mbër yëpp lañ xam. xam nga nit ki moom doo ko xam la far force. soo si duggee rek dafa am leneen lu muy ndurul. Mhm. waaw te mi xam nañ ne sax suñ doxoon loolu du sotti kon nag mieux vaut que ma classé ko teg ko ne leen ma xool sama carrière lu nekk sama kanam. Mhm. waaw yàlla na ko yàlla defal jàmm ak jàmm gën yëpp. mais buñ la pro buñ la woon daal du yàqoo ci yow. proposé nañ ma ko dox nañ ko mais sottiwul. bi mu bëree ba pare. waaw mais sottiwul. ci ci ñoom la yàqoo a en tout daal sottiwul bu ñu wootee daal nanguwuñu. waaw mais man. pare pare naa ci daal pare naa ci. ponkale daal nañ la jël ñoom Ahmed Deme ak ñoom ma lim daal. Ahmed Deme moo jël Tidiane la lamb ju neex la. waaw lamb ju que dama yàgg rêve bëri moom depuis moog Jaguar may nekk ba tout temps waaw si laa bëggoon gën a bëri moom te nekk maa ngi nekk lu tuuti man sama fite ma sonal. waaw maa ngi bëgg a bëri moom jusqu'à présent nag mayu ma ko jàmm. daa mel na nga am envie di bëri ak mbër yu mën a bëri. très bien. lu tax loolu ci ngay mën a xam nga tey jii nii dañuy wax boo boo bii de lii rek la mën foog nga bëri ak ñoo xamante ne dañoo bëri technique nga xam ne ku nekk day génne sa technique su boobaa làmb ji day neex mais tey jii nii dañuy ñëw sax ñu ne kii da da koy daan wala kii su ko jàppee da koy daan wala su ko defee lii da koy daan. lan nga a bëgg ci bëri mbër bu bu la xaar ba nga song si ko wala mbër bu la song si mbër su ma song see damay bëre su ma ko songee damay bëre maanaam lépp loo ñëw damay bëre. maanaam mais mais nga am ay say say for wala say bëgg-bëgg yow ban nga ban nga ci gën a taamu dem wala wax fa dëgg yàlla dëgg rek moo neex yàlla man lépp laay def waaw man lépp laay def soo taxawee dama lay jël si su ma fekk see dama lay daan waaw man daal aw ma aw ma aw ma for ci lam lii quoi bëri. non non. ndax treize combats yi nga am na ko ci mas a jàpp sa tànk. waaw ti Tigo jàpp na sama tànk mm-hmm. euh, kii tamit nu mu tuddati caatu euh, bu waalo jàpp na sama tànk waaw gàkku doo tamit jàpp na sama tànk waaw gàkku doo jàpp na sama tànk ja si la blessé lii quoi gàkku doo. mbër rek nga daan daal caatu waalo mu ngi xamante ne ñëpp dañ koy xaw a moytu. waaw nga may ko sax revanche. saa yi moom wax dëgg yàlla ay revanche moom talu ma ko. xale du joxe revanche. non non xale du joxe revanche. loolu risque la <laughs> ragal du ko def. <laughs> waaw noonu la demee nag. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw. Youssou Ndour Mor Kang ku daan foofu. ku daan soxla pare naa. ak ka yëpp. mën naa xool. man daal en tout ñoom ñaari pare naa. waaw parce que Youssou Ndour tàppel la moom làmmiñam la yor rek. Ah, après Youssou indi frère am. fii sama benn grand ñu tegal ñu cent mille cent mille franc la ñu tegal période tabaski jour boobu noonu dama toog ñu jënd xar ba pare ma li jënd xaru paa ba pare yoruma dërëm nag sama grand bi woo ma Baba Seck ñu tegal ñu cent mille ñu war a bëreel maag moom kii moom mujjee bëri càndum deux moo ñëw mujjee bëri combat bi moom dafa ñëw ba foofu noonu ruux mu ñëw jël ko euh, combat bi càndum deux ma daan ko. da ko tegaloon rek pour ngeen bëri. waaw bëri mbedd ba foofu ma. bayal kii nii euh, côté kii bi waaw Liberté cinq bi. waaw côté police jëppal bi rek côté boobu. yéen càndam doy ngeen lem ko kay. taxawuma am moom sax wala. mais Youssou Ndour koo daan de Youssou Ndour dafa di ci ma koy fooyee nga naan man man balaa may gën a mën a bëri bëri ponkal. man loolu yàlla loolu la moom natoo quoi balaa may gën a mun a bëri bëri ponkal di génne samay technique ñu xam ne kii lii la mën man ba léegi samay mën bëri waneegu ma ko ci làmb. daan waaw te man daan naa façon ponkal bu ne. mais dañ ciy sant yàlla rek. lépp yàlla la nag. waaw yëpp yàlla la mais ñun dañ ciy góorgóorlu rek. ok am na solo mais promoteur yi ñu ngi ñu ngi lay contacter ba léegi nii. waaw promoteur ñu ngi may contacter rek am na ku a contacter di ma wax xaw ma ay rëm. ñooñu ñooñu moom promoteur yooyu dañ ma yëpp waaw rëm rëm bu bëre nag euh, bu ndaw. waaw xam nga yooyu noonu loolu. loolu dafa rafetul quoi. tey jii nii doo gis doo gis koo xamante ne champion la nga war ko teg loxo war ko a adversaire bu baax mais ñoom dañuy yor seen mbër bugg leen boole ñoo xamante ne mooy loolu quoi ñoo leen raw si làmb. Ah, sa bañ bari na mën nga bañ nga rëm bañ nga jóob de. arme bu ngeen non non arme bu ngeen ça ma la limal daal. Liss Ndiago ça waaw ñu la limal daal ñoo ñooy combat bi hmm. waaw. loolu am na solo. dafa mel léegi da ngeen def seen 100 pour cent. waaw 100 pour cent bi yàgg na fi moom. yàgg na fi écurie Boy Bambara écurie Doudou Bakassar léegi moom nice quoi. benn écurie la. ci ci gox koñ bi fii te bokkuñu écrit yooyu noonu. non fii ñëpp a bokk écrit man ñu ma xam ñëpp ñoo bokk écrit. déedéet am na ñu fi nekk kay te doo. comme kan. bokk. général Fass la bokk. waaw. Ah. wala moom bokkul 100 man moom général wax dëgg yàlla moom xaw ma si moom lu bëri quoi. Lac Rose fu mu bokk. géej waay la bokk waaw Lac Rose suñu xewlee suñu grand frère la day mais Fass nekk mais seen fii la dëkkoon. bokkul 100 pour cent moom. bokk na ci. maanaam dañoo bokkul écrit rek mais bokk na ci 100 pour cent parce que du bëre fii du fii waa gox bi. bëreeg moom mooy bokk na si 100 pour cent bi rek. waaw mu ngi nuyu di bëreeg mu ngi dëkk géejuwaay di bëreeg waa géejuwaay. Ah. waaw kon nag xam nga fii la bokk quoi te Fass ak fii benn la presque. Hmm. waaw. ok loolu am na solo suma la laajoon tey cinq meilleurs lutteurs ci làmb ñi ñëw cinq personnes léegi bon boolewuma la ci xam naa ne kon nag sa bopp nga njëkk a cinq meilleurs lutteurs dama bëgg nag ñu wax ko nag yow ci honnêteté bañ fay nekk di ay farfarloo. ñi nga jàpp ni ñoom ñooy cinq meilleurs lutteurs pour l'instant ci làmb ji ñan la. Balla Gaye Balla Gaye bokk na ci meilleurs lutteurs yi Modou Lo bokk na ci meilleurs lutteurs yi Eumeu Sène kenn mënu ko. non non non non li ma la laaj kon déggoo ko pour l'instant. pour l'instant waaw. ok si génération bu yëpp ci kaw ba ci suuf. ñan nga jàpp ne instant bi ñoom ñooy cinq meilleurs par exemple nga ne ma wo booluma ci par exemple nga ni booy Dakar. Mm. catégorie moom moom laa ci jël moom mooy le meilleur foofu. Euh, beneen mbër catégorie nga ne moom mooy meilleur foofu noonu laa bëgg nga expliquer ma ko mu leer. waaw catégorie Sa ñoom Sa Thiès moo fi meilleur waaw man dama bëgg nga ma catégorie bu nekk. léegi VIP. VIP. waaw Balla Gaye catégorie mm-hmm. moo fi meilleur lutteur mm-hmm. waaw beneen catégorie bi. Euh, ñoom ñan la sax mooy ñoom su juumul mooy ñoom kii nii euh, mm, Youssou ñoom yusundur Ndour. catégorie ñoom Sa Thiès ñan la. ñoom Sa Thiès ñoom Reug euh, jëm si kaw daal ay ñoom Boy Niang waaw Boy sax xaw na percé. Franc ñoom Gris 2. foofu kan moo moom champion la moom. Gris moom dafa am doole rek sama grand la <laughs> kooku te danañ ko yéex a jël de na wàññi dooleem bi tuuti <laughs> waaw noonu la demee uh-huh. waaw. foofu koo fay def. waaw foofu franc franc parce que mooy ku bëri lu muy compétir mooy def ay kele xam nga. léegi wax nga Balla Gaye wax nga Sa Thiès wax nga franc. waaw waaw. boobu daal man ñooñu laa xam daal meilleurs yi daal. kon su ma la laajoon trois meilleurs lutteurs ñooñu waaw ñooñu laa lay wax waaw ñooñu daal mën nañ bëri trop hmm. Hmm. waaw. ñooñu daal laa xam ne daal man lu ma remarqué mën nañ bëre. lan moo la neex ci bëre Sa Thiès. parce que noo ñëwee rek mu bëre parce que dama koy xoolee sama bopp moog Balla Gaye noo foo ñëw ñu bëre. Hmm. waaw loolu mooy mbër moo loolu mooy mbër bu complet hmm. mbër dafa war a complet man doon ñoom ñaar dañu complet waaw dañoo complet man donte yoruma taay bi mais am na lu bëri loo xam ne dama koy xool ci ñoom ko surtout ma soo demee entraînement am na lu bëri soo ko pratiqué soo ko gisee si ñeneen rek dangay ngay ko quoi hmm. waaw loolu la waaw yoruñu lépp nag mais luñ jot yor moom ah ñu ngi si suturlu quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. bu ma la laajoon tey ku mel ni Modou loolu boo amoon looy jël ci moom ci bëre lan lay doon. yëfu bandi mm-hmm. waaw Modou Lo yëfu bandi capable. waaw su ma la su waxee lii lay def lii lay def force su waxee da lay dóor nga daanu da lay dóor nga daanu waaw Modou Lo moom bandi géew la moom waaw. Ama Baldé. Ama Baldé la fàtte naa foofu sama mbokk boobu pël bi <laughs> champion la. depuis yi mook tafaatin laa xam ne ak Malick Niang laa xam ne kii gaynde la quoi. Hmm. waaw fàtte woon naa ko sax mais champion la moom tamit. cinq la moom euh, si la bokk ko hmm. waaw parce que lu kenn du lu kenn xalaatoon pour def ko tafaatin moom moo ko ñëw def. Hmm. lu xenn kenn xalaatoon pour def ko. Euh, Malick Niang moom moo ko ñëw def. kon kooku noonu waxaale wu ma ko quoi. waaw champion la. boo doon jël ci moom lan ngay jël. waaw mooy am fitam bi. su waxee su waxee sa tànk lay jël da koy jël. Ama Baldé dafa am fit waaw te moom du la may jàmm suy bëreeg yow waaw te man su su may bëree su ma defee kele bi su sottiwul damay defaat beneen enseigné ko mm-hmm. mais tant yaa ngi taxaw di xalaat rek lu bëri da koy perte te sa adversaire mun na noppalu xam nga amaat beneen lii bu dugg ci moom. ba mun la gañe. Eumeu Sène lu neex ci moom. Eumeu Sène la te mbapatkat la. waaw mbapatkat la te man dama bëgg mbapatkat ngay bëre di génne ay technique waaw ak nu mu demee drapeau chef de l'État ak lu ñu jot a xam ci moom. te der la tamit quoi. Mm-hmm. balaa muy gën mu nekk gaynde mu gis deret. Mm-hmm. waaw kooku gaynde la quoi. Mm-hmm. Euh, yéen xale nga gis am ci moom am ci ñoom yaakaar xam ni su leen yàlla defalee jàmm rek mën na ñu nekk roi des arènes. ba léegi boolewuma si sama bopp ah. waaw rek sa bopp. benn ci man ah, mais aussi benn si ñaabu ndaw. ñaabu ndaw ñaabu nga njëkk ko waaw ñaamu ndaw champion la mm-hmm. parce que dafa yor taay bi mm-hmm. te su bëree day teey balaa muy def dara day xool. ak bëgg feeñ na ci moom ak bëgg bëgg. bëgg dafa bëgg lu muy def ba pare bëgg réewam aussi dama koy gis day day ñaxtu rek si réew mi mm-hmm. <laughs> waaw bëgg réewam aussi. waaw moom champion la su góorgóorloo dina dem. da nga am ay relation wala nga gis ne mën na nekk champion rek nga wax ko. sportif laa loolu moo tax may wax wax sportif. waaw. à Ndaw waaw. ak kii nu mu tuddati booy bu bëree keroog jeex jàmm champion la sama rakk jooju moom tamit champion la quoi waaw gaynde la suñ ko jàppale waa Mbawar Mbawaru yëpp dina dem aussi waaw ak euh, ku si mel ni Cité bu Saalum Cité bu Saalum moom tamit. yaa ngi leen xam. waaw ah, mais dëgg la mais mais xam nga lu tax may wax loolu. mais affaire koñ lu parce que tey ñun fii amuñu promoteur boo xamante day génne suñuy suñuy suñuy hmm. loolu moo tax. foog ma jaarale ko fii mun leen mun ko génnee. waaw foog mu promoteur bi aussi tamit voilà très bien. Hmm. foog ñu génn quoi ñu leen xam ñu mun leen a xam bu baax a baax xam ne leen sax mais ñu gën leen mun a xam. Hmm. écrit bi am na talent yu bëri. wallaahi comme lu ma la wax rek promoteur yi il faut il faut ñu am ay promoteur waaw ñu ñu ñu talent yi mun a génn ko xam nga soo toogee di lim ñeneen ñeneen ñeneen xam nga dafay am lu muy ndurul. te demeewul noonu te demeewul noonu te affaire sport la rek. Euh, pour yow lan la ñu war a changer ci làmb. waaw làmb dafa am lenn loo xam ne dañ si war dañ ko si war a yokk erreur su si làmb balaa ngay ñibbi war nañ la jox sa victoire bu leer. muy vaar. vaar war nañ ko def si làmb. Mhm. waaw loolu noonu tout le temps su ma toogee émission dama koy ñaxtu. waaw soo gisee ma koy ñoxtu tamit da ngay dem ba sa ñibbi ba sa kër ñu naan la jox nañ la victoire bi nga jël vingt cinq mille aussi. di ko defaat di ko fay loolu noonu maanaam sport Sénégal rek la am kese kese. waaw loolu sport Sénégal rek la am loolu noonu moom dañ ko war a éliminer quoi. Hmm. waaw parce que suñu vingt cinq mille lu ñuy jël yi nii xëj na fene suñu famille. Hmm. waaw nañ bàyyi nañ nañ def vaar daal. écran bu mag bu ñu def stade bi lu muy njëriñ. Hmm. waaw. dëgg la mais yeneen gox tey par exemple écran bi nga wax. am na dëkk yoo xamante ne écran amu amu am na combat dëkk yoo xam ne combat bu fa amee benn caméra nga fay gis mm-hmm. est-ce que mënuñu xool yeneen pexe rek wala VAR bi da nga bëgg ko Dakar. mun nañ ko wala waaw combat yëpp fii lañ amee te am nañ caméra yoo xam ne mën nañ ko génnee erreur su amee kon donc c'est quoi le problème wala 25000 moo lay intéressé loolu noonu war nañ ko suuraale bu baax a baax. et naa ak yow sax tey ji ku def recours gagné. recours bi boo bu fekkee da ngaa fayoon vingt cinq mille ñu delloo la. sa waaw loolu tamit mun na nekk. waaw loolu loolu tamit mun na nekk quoi. Mm-hmm. mais mais gars yi vingt cinq mille ñoolu ñu fekkee su fekkee ñu CNG ñu lekk sa xaalis gars loolu la ñuy jóobee te loolu du yoon. Mm-hmm. waaw loolu war nañ ko baay war nañ teg écran bi comme ni ngeen di tegee seen écran ñu teg écran spécial pour euh, mm-hmm. arbitral bi. nga xamante ne ñoom dañuy ñëw ñu xool ñu ne erreur bi erreur bi motul motul sax deux secondes deux minutes. ñu jox la sa victoire nga ñibbi nga ànd ak say moo gën a rafet quoi mais da ngay dem ñu ngay jaabante CNG yooyu yëpp coono la. Mm-hmm. waaw te ñun làmb dañ ko war a évoluer mais pas ñu koy téye même point. Mm-hmm. waaw lan mbëri di def ci làmb loo xamante ne nii. mbëri nañ bàyyi di gaaw a xeex ci làmb ji ngay ñëw dëkk mbëri sax mu dugal la ko mm-hmm. pour bëgg a rek yooyu noonu yëpp baaxul moo tax tamit des fois CNG day siisu ba ñu lay teg sanction boo xamante ne du yoon waaw ñun mbëri tamit dañoo war a ànd ak suñu xel ñu xam ne sportif lañ donte yaram bi des fois day tàng mais nañ contrôler suñu bopp. ñu bañ a ñu bañ a dugg si toujours même erreur. ñu ñuy sanctionné. après dañuy toog ñaan CNG CNG CNG. donte CNG tamit aussi mu ngi def ay erreurs yoo xamante ne ñun mbëri nanguwuñu ko. waaw ñun tamit nañ moytu loolu. ndax d'accord nga ci façon communication bi ñuy def. làmbu kii la milieu la làmbu mafia la ah genre communication yooyu noonu ndax Boy Dakar d'accord. non loolu mosuma ko d'accord waaw làmb du milieu. gis nga affaire yu ñuy dund yoo moo tax làmb yàqu waaw koo gis day ñëw làmb milieu la affaire banditisme loolu moo ñoom ñooy yokk euh, defkat yi doole waaw loolu toujours da ngay sensibiliser di wax gars yi nañ ñëw estat sanse ba naas ñëw toog pourtant man lu ma doon xalaat bu njëkk dama doon xalaat mbër bu nekk dafa war am versière comme gars yi koy def MMA ku nekk dafa am combat MMA euh, combat ba pare ñu jox la sa versière nga xam ne mbër bi su ñëwee foofu la ñu ko canaliser convoi du am dara du am képp ku bëgg a seetaan mbër bi mu dagg euh, mu taal motom ñëw seetaan moto euh, kii euh, combat bi. Mm-hmm. loolu suñ ko defoon amaana affaire banditisme du am. Mm-hmm. affaire de saleté du am affaire yooyu noonu yëpp mm-hmm. am na mbër boo bokkuloon gox te doo bëri ak man fii nii. par exemple bu dëkk Pikine wala mbër bu dëkk waay wala mbër bu dëkk Fass te bokkoo ak moom koñ nga ne doo bëri moom loolu am na. waaw parce que tamit dafa am loo xam ne dañ ko xewal te suñ ko xewalee doo tëb tëb rek nga ne da nga koy dindi ku su mel ni ñun waa Ndakaaru fii c'est ñu ne da ngay bëreeg diw. waaw ñoo bëgg secteur. Ah. waaw gars yi loolu. doo bëri. Hmm. wala bu sa waa gox waaw man ñëpp laay bëreel. koo ku dem ba bëri koo xamante ne benn grand bu bokk bu mu bokkadum beneen lal bu ñu tëdd nga xamante ne bàyyul kenn ah. mm-hmm. waaw man loolu laay gémme quoi. Mm-hmm. waaw parce que làmb jàng jàng moo tax xam nga. lambu dafa dafa dama ko bàyyi dama ko jàpp ndax euh, bàyyi baay jàng waaw dama bàyyi jàng ndax làmb waaw dama kon am na yoo xamante ne lu ñu ñàkk fula yoo xamante ne du ma ci waaw ma ci dox waaw. dégg naa ci di nuyu waa Saloum bu baax a baax ku si mel ni ñoom Mouhamed Faye Alassane Gueye ñoom Aliou waa Saloum Saloum yëpp bàyyiwuma leen waa Pane Sader Lamaram Ndiawla Alkaati Sëncu Baba Faye Sëncu Amath Fall waa Gambi maa leen nuyu bu baax a baax waaw. Euh, du nuy sama doom nday tamit euh, ñaari yaar depuis Kër ma jëbel ah waa Kër ma jëbel yëpp maa leen di siyaar usman Magam bi ah. Euh, waaw Kër ma ndongo waaw. ñëpp bàyyiwuma leen. di nuyu waa Kër Omar Bambara Kër Omar Pël Thiamène Dagga Kavil Koutal di nuyu sama mbokk yi nekk foofu yëpp. di nuyu aussi tamit waa Caawaando waa Kumbal nga foofu laa njëkk a digle sama drapeau maa leen di nuyu bu baax waa Sika Troupe waa Fass Baba Thiané. maa leen nuyu sama homme de tenue yu nekk foofu noonu maa leen nuyu nuyu bu baax a baax a baax di nuyu tamit waa États-Unis bàyyiwuma leen maa ngi nuyu tamit Papa Diakhaté junior Papa Diakhaté junior dama bëgg nga taxaw ma bu baax a baax a baax a baax dénk naa la sama bopp Papa Diakhaté Papa Diakhaté junior dénk naa la sama bopp euh, sama grand Pa Abdou Diop euh, Pa Abdou Boy Pa Abdou Boy tamit dénk naa la sama bopp man ñu ma dénk sama bopp moo bëri waaw dama bëgg ngeen taxaw ma bu baax a baax a baax a baax parce que lamb jàppale la dama bëgg ngeen jàppale ma te yàlla tax waaw dama dama bëgg ngeen jàppale ma waaw ñooñu ñun suñ ma jàppalee rek dinaa dem ci làmb waaw donte am na ñu nekk sama wet ku si ñoom mel ni ñoom Aba bàyyiwuma leen benn yoon ñoom Mour Sagna gaa yëpp bàyyiwuma leen waaw ñoom Lamine naa dañuy dagg seen yiite di ñëw ci man di ma di ma teg si yoon daal waaw bàyyiwuma leen benn yoon junior maa ngi lay déglu dégg nga jaajëf kontaan si yéen waa waalo waaw waaw waalo maa ngi jaale tamit waaw waalo bu baax Anta Anta Ñang Anta Ñang sama jigéen saa ma amee combat daf may taxaw bu baax a baax Anta Ñang maa ngi koy jaale bu baax yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana si barke Seydina Mohamed sama yaay mère Daaro maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Daaro depuis waalo waa Ziguinchor Soor tamit maa ngi leen di nuyu bu baax waaw waa Pakaaw bàyyiwuma leen waa Tangoor yi Casamance bi yëpp bàyyiwuma leen waaw sama paa yu nekk foofu yëpp maa ngi leen di siyaar waa Guinée waa Mali maa ngi nuyu bu a baax